Salut les amis de Sport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également gars hein, de baisser les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager les informations et un bokk sénégalais fait fo maintenant, 14 régions du Sénégal aduna wërngal këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci l'hôpital et ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ak jàmm ñi nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi erreur judiciaire génne lu ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xale leen àjjana fi daw si gars yi te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de Sport TV l'actualité en continue gars yi actualité bi ñu fas yéene li nga xam nag mooy donc ki di eh, Iliman Ndiaye ah hein, kii de bëggul moom yàppalay tudee Iliman Ndiaye ñu fas waxtane actuellement point mercato bi nga xamné mom lañu la am am club yu intéressé wu ci mom yépp ñu cay léral mais d'abord abord gars yi li ñuy wax sànq bu nekk mooy lii di coupe d'Afrique bi félicitations à tous les centres de formation mais d'abord abord may wax rek ñi ci koñ di entraîner ñi ngeen gis ñi nek ci mbéd di former xalé yi di leen taataan temps yi nekké ay benjamin poussin minime ah moy lool ci ñi yag football xamné nañ may wax donc ñoo ñëpp ñu leen di wax jaajëf parce que tay bu football égué fi ñoon ngeen ci walu bu rëy rëy rëy rëy lii na gars nag ci match Séville bi la woon ñu génne ay monnaie yoo xam ne mooy monnaie di Javier Tebas bu fédération jës ki nga xam mooy donc kii di euh, président bu Barça aussi euh, yenn dirigeants yi ñu jàpp ne li nga xam mooy arbitre bi ñu ger ñoom ñëpp dañ si am wàllu gars yi biee yi lañ génn di ko sànni pour wane ko mais aussi mauvaise nouvelle pour nga xam mooy Bounou Yacine Bounou le gardien international marocain bi nga xam ne nag dafa def choc bu métti ah, ci biir match bi match donc ñu joué ah, donc ak Almeria Séville Almeria donc choc bi nag tax ñu Yacine Bounou ah, également prompt rétablissement parce que Sénégal ak Maroc ay frères plutôt et que tamit dañoo nekk aussi ci football Maroc lu lu coupe du monde parce que nekk première équipe africaine bu dem ci demi finale coupe du monde aussi donc Paul Pogba Paul Pogba bi bag bi balaa moo yegg si dina am problème parce que tamit dafa ressentir li nga xam mooy ay douleur mus musculaire tax nag moom déjà c'est presque sûr que ne du bokk ci liste Didier Deschamps bi mais aussi dina gëj jouer match prochain bi nga xam ne wala duñ ko convoqué par avec la Juventus de Turin ki nga gis ni également c'est le gardien de Lens hein, moom nga xam ne dafa yàggoon a bëgg jouer pour équipe nationale de France gars yi nag actuellement nee nañ donc moom kii di Didier Deschamps dina ko woo ci liste bi liste prochaine bi par rapport ak li nga xam ne mooy donc si seen confrontation ñu war a amal Brice Samba qui dit également euh, Pep Guardiola Pep Guardiola néna ki nga xamné moy donc ki di Erling Bro Haaland mu ne boo gisee ni boy bi di célébrer ni mi café ni mi ré ni mi dawee def dala wala né ki dafa content il a envie de rester à Manchester City té mi ngi wane bofam ki nak di Djibril Cliff néna même bu fekkee ne wa Qatar ñom ñi ngi ci li nga xamné moy donc bëgg aussi jënd ñi di Manchester United man amna confiance amna gëm-gëm ne gaay yi dinañ mako jaay loolu daal Jim Ratcliffe Radcliffe moo wax mom mom déjà li nga xam moy OGC Nice ki nga xam moy Julian Alvarez ma nga leen ko doon wax Julian Alvarez actuellement gis ngeen 2028 donc mom avec ñi nga donc Manchester City Manchester City bi nga xamné boucler bouclé booy bi moom jox ko temps euh, durée plutôt contrat bu baax baax baax bu gudd à long à longue durée mom lañu ñu bëggaat parce que xam nañ boy bi c'est le futur et bi il est excellent c'est un très grand. Tata maa la ko doon wax sank na len Mason Mount ñu ko wax Liverpool mais aussi Manchester United bokk na ci club yi ciblé ki nga xam moy donc le joueur de Chelsea le Blues de Chelsea nga xam actuellement à l'heure où je vous parle négociation yi dafa daldi taxaw ci feu rouge bi la nek hein. feu bi orange sax dafa daldi rouge mais aussi qui di grand Potter nee ki di Enzo Fernandez nee joueur bu fantastique la hein nee tay day gën di wane boppam mi match di gën dem muy gën di ay di gën woné performance am lo dal le grand Potter daal di seede ci nga donc Enzo Fernandez mais aussi li di résultat donc week-end bi gars yi par rapport ak euh, Prime League bi Liverpool dañ ko patal benn ah. donc Liverpool bi nga xamné kéro keroog moo dafa del nek Liverpool Manchester City dal di Crystal Palace Everton bu ñoom Gana Gueye di door ñi di Chelsea également Brighton Leeds Brighton dal di tembo Chelsea dal di door aussi ki nga xamné également mom moy benen joueur marocain di ki nga xamné donc lui El Nesri moom lañ Tan tam mu nek joueur du mois du côté du FC Séville mais aussi mom bu ko nekké aujourd'hui c'est grâce aussi à qui di Pape Alassane Gueye bi nga xamné da koy délivrer ay passes décisives Lionel Messi. kii par rapport ak nombre de passes yi mu def donc en club gis ngeen ko pied droit li mu day dugal mi ngi noonu ah. ak année bu nek passé pied droit ak yim passé pied gauche mais aussi par rapport la saison il me def donc ah 2009 2010 ba 2022 il y lañ def nombre d'années ngeen gis ñu def ko ki également Balogun momit Boy bi mi du côté de la Ligue 1 française hein a 16 buts en 13 matchs en Ligue 1 Balogun Nek Boy bo aussi mi ngi def son bonhomme de chemin euh, RC Lance Lens bi nga xamné tay ñom 4 buts à 0 clairement mal malheureusement pour ki nga xam nak moy suñu gardien tamit Mory Diaw tey moom li jël bari na lol lol mais quand même c'est pas la faute à Mory Diaw parce que aussi euh, lancé un niveau au-dessus ki nga xam aussi nak moy John Lopi mom tay ak nga xam nak moy donc équipe am ak ñom Yehvan Diouf ñoo patal ben ñom mu AS Monaco bu Crépin Diatta Crépin qui était encore euh, titulaire mais aussi qui nga xam moy mooy Nabi plutôt Malang aussi il a joué mais que dire de Eliman éliminé Ndiaye éliminé Ndiaye éliminer Ndiaye Ndiaye Diatta Ndiaye gaynde bëggul bu mu yàpp lay donc Iliman éliminer illuminer Ndiaye moom daal fu day illuminer donc wax ma ay comme belle expression mais day illuminé mais aussi day éliminé, moom ay club yu bëri ñu ngi si ginnaawam di ko topp club nag ñoo nekk jamono ji di xëccoo pour jënd Boy, bi ci été bii nii muy Everton Everton nee ils étaient séduits dañ ñoo ay jiixi jaaxa mais depuis keroog ba mu dugalee kon Tottenham Boy yi dañ ne waa bi la West Ham aussi United dañoo bëgg Boy, bi ñoom it nekk na si boy boo xam gis nañu profil am intéressé na leen arrangé na leen et aussi c'est un joueur boo xam ne qui est talentueux et entraîneur bi nga xam ne moo ko yoroon ci U21 et tout et tout nee na bi il a un potentiel exceptionnel donc ba mu nekkee foofu noonu ci di soog a ñëw nekk di football ak petite catégorie foofu noonu ci Sheffield United mais aussi que dire de Newcastle Newcastle nga xam ne actuellement ñoom it ah dañoo génne ay koppar gu bëri boo gisee seen euh, saison bii nii recrutement yi ñu def ñoom dañu nekk di progresser donc kii di Iliman Ndiaye bokk na ci joueur yoo xam ne moom la ñu ciblé aussi gars yi c'était les informations que je voulais vous donner ah toujours un plaisir de vous servir Wélen est like surtout gars wélen woy leen pour jàpp combat de partage vidéo di abonner, di on avance ensemble dans la magie de eSport TV jaa game, chef.